fu mu yaroo ci kuusi baay ku ko jàngal baayam la moom kon tey ba yaaga màgga siis yow man xamis ca takku saa waa dal di mel ni saas malaaka yaaga sappe naan subhaana baraama yay cosaan yow man xamis ca takku saa fukk ak juróom ma mu di rajab wànnay bu naan waxal ñu kaw sa fooy fanaan xatum junne gannaaw gàddaay am ñetti téeméeri ak giddaay yu toj fan yu néew néew na su la xam takkaay mu dëkk du barxaama ñas bila miraa wala nabaas xarnu yëkkin bi yaa ko tes barxaama yaa na kaw si ñas musa kaw na ahmad jugal taw na ma tooy takkal ma sini fas yaa ngi jooy ngir ba nga bay sa tool du mooy bàyyi sa tool du mooy sa tool du mooy ndax mu takkal ma ay dara may ma ligal ma jub jiyaat bay mes mii nam a xamal lan lay doxaa déete ana ban ay da for lay wàcc bay doy li ma ndax ma way yaa koy joxe ba tax mu law ba taxaw taxaw na tëddi law askay barahama yaa fi xaw sattul na am dalaay waay ca asal la bi lay nga wàccaat fii ñu la bay ngay doon di bay ca xabdalaay mama dinas ba mooy nekk jalo jalo ba saydu feeñu nan ko yónni nañ ma saalum bay arhamay aje ko ya seydi kay nga ñoo doon te kon ma xam ko nde kon da ma fekk saalum bay arhama seydi ko naan laa wa alam yàlla yu yem neen fu ko neex lay denc ci mbuutam bàyyi dara am boobu la summaan nga laxasaay dagga kaddu mbaal nga taggu jolof jëm ci saasa bàyyi dara am ma ne keroog ba mu wàccee biir saasa dañ ko sancal ñaseen ko xaadi bàyyi dara am ba fa la sant nagga maalik génne caanam bagga ka bar ko bam suubu biir géej bàyyi bara amana bam fa bawoo la sanc kër samba taw da fuglu seydi mu nga ñaan ci yàlla yónneen bañ bañ amam hati bam fekk kër samba nan ko ak jihaab seydi wéy na demal bambu bàyyi am am na keroog ba mu wàcc biir bambu dal da fetal noonu ya rammu ñële ñaamu tuubal bàyyi am am na langu julli mbal ba jàpp na ñeseen bàkku leen maam aji ñes ba na fi mbër bàyyi am am na maam aji ñes mbal ba njàmba ngi mbal ba jën wu mag yaa ñoo tere di ci leeya bàyyi barama jëjë kattari fii kenn du siidi barama dinkiling bamburanaani gaañi barama dooma balaw bu ko lëg lekke boo yàlla coy la maam li ñi jagle du luñ jëf jëf bàyyi barama ji kay say bu ko ko tooña ndoxam neen du forox jàngi leen yéen fuudi riiru sidi baraka leer jant ñi koy dox di gëm mu ne duñ janoo moom bu fajar xare war nañoo dee noonu baraka leer leer ña koy dox di gëm mu ne duñ janoo moom bu fajar xare war nañoo dee noonu baraka naar gànnaar bi doon jaay maqaama ibnu maayaaba da ko tiite ruusika noonu baraka dañ ko toltoloo daane ko ca ngand ma nay ko xuruj yi bay seex nani marham ñàkk te giin te gi aljanat rahna taxa martaba seex daal ma koy dal nani marham ma naamal ibnu maaya mi di noonu seex yal na ab ci géej ji wéeru nani marham ma lu lansaan yaa nga kër ma jibel ñëw la roose ngeer haddu bii gi gëm na yónneen sidi bara sama haddu bii nga jënd kër ma jibel ñi ka jëf ci baay mu man du moo tabee moo gëm sidi bara sama laab na tuuti mu war yow doo ma dong ay sama ndaay ali samba ci kaw sa yàlla sidi bara sama omar tuuti sa ketteeru laamin tuuti ca faas moom man du moo tabee mu gëm sidi fara am maam maam ak seyna muy yaaram bi xaaris bi yaa foor taxaw nga mil ko sin baay sidi fara am maam la alim la aarif la bara ko seede yal na yàlla jox mërëmal sidi fara am maam yàggal bant ci biir ji du tax mu nekk jin jin ma subi yeewu leen gën sidi barakallahi andihi fër ba ca tay bu nu ngeen mu jëm jëm jaasi lañ ko gor mu jaabaan noni baraxam man a képp ku la koy iboo ngi ci xeelal lu mu dégg moom la bu ñu dajee diñ ko jàddal noni baraxam man du ma ko nuyu du ko jox la ko yoo yi ko sunna yàlla buñ fa dajee kuy bañ sidi baraxam buñ fa dajee ba ma tampal ko bandaanu jaaxa Ibrahima Diouf sim na kuy bay si di bara am ak xajum xajal wasa jërëjëf وقال الملائكة Ahí Mother,

قدس المربي سيدي برام لا يلا دج بك الاسلام بي جبل برام تجندال بي لي جبل sidi bara amoon na yàlla mi daan yónni yónni tu jëmam jëf يسر الأقيد مصدع سيدي برا أمنا نياي بوي خال ماما دومي أتا مجسوبي مويلان وطولن دون مويلان سيدي برا أمنا نبلن تبيبي تبري بكالي باي بقولو day gën may soy leen seen mbokki xaari fi ñooy seen doomi baay jëfe sariyatu mu neex si di bara am na la ko dale sama adama bajj abdallah lu fi mu sey mu sidi fara amoon a gën ba mu lan di may ku la jéem a xas ay seey ak baaxuma xutti doomaas sidi fara amoon a lakk waa ne dox na xas bii ci coono ngay dee kibaar sànq na nga gañay di fara amoon a yàlla yónni ayah, yónni koko endi waara sirul haqi mo sodana sidi sidi amuna ko die bambulan gi bayi kula jema fas oh. ayya arsay apa hafri fi sidi bara allah lekki la ma taman yaan harin si mu leen jibril taxal ma kër mahmud sidi bara amu la ma cam la ma fotan toohan harin si mu leen yàlla ku ko xam mu la tulam tulam sidi bara amu la ma jori dof ngeen ndoxam essence duñ ko fayanaay dafay yokku day ko doole. Sidi Bara amu la maj su bu ndaw. war doon gaa garaay jaane sañaanaay. ma joobi wattu la ndongo yi. Sidi Bara amu la ma yàlla déeg Sidi Barhama. fa mul ko sidi bara amul akon bay batam bu jegg ko suko xone cako asamaan ko mona kol ci bir mir na barhama bay bin nga ne dak saytane tadi rasulullah ibrahim ju santal garamal sidi bara amal ibrahim ju santal kila rase banga saxila fardul jami obidu mayas sidi banga amuna katrina bëggalon seyane suukar ci bir meew ibrahima juuf tagal masabaay sidi banga amuna batab kun bu jubee ku ko weddi iblis ka yaakaar am jaanama ñoo bañ man amana yoomu ndakaaru wa bay jaare fari gambita du sigil ganga yimbu ganda gana la bay kabaram wala la kala mayal masiyaare sidi man amana halar ma ganda gana garlo bara ma dala ikine nyana na ya fa waylu ku nek yor ter bolen dala lu tondaw bas sidi barhama bara jëm bi bay ko naan muy lool say doo ku ñu may yabay lekk la bien sidi barhama bara suma naan fon arab mbaa ba sañ leen a wax li bay doon di kur si tappo hasama gañi barhama ne bay jëmam ya paas na jinni kurbu bay waxaay mu toodoo si kuti jàngay hidoo سليمان بابا يا أيها الناس ارجعوا إلى ربكم دون بكلمة ربكم سليمان بابا déet ci reer ji te reer ngeen ñu reer te moom dootul reer am roon naa yi ngeen ci डेगी टिंको कलन लो जिस बब्बक गैर भई हो ये बरहमान वकील दुंदो दे कोई विधि बने तंचे गम होगा दे कोसे घर दे भाई सिदी बरहमान गुड्डे बिच फजर को हाथे मोमलाम दो मो बुजल तो फेंकी दिन दिन दिन हनी बरहमान lu barxaam doole bëri lay faj ñaq tuutal borom baaba yaasin ci bay soy sidi barxaam mën a jaale murit saasi bi baaba yaasin ci bu tijaan sidi barxaam ba bàyyi da bu lu xer ca bambu gaar baaba yaasin ci bu moom wesel andal ci barahama jox ko sëfoor boole ko essence ne feeg liggéey bi pare lu ma xam day dawal service ñi barahama na samedi ci timis ba baabay toll ci sukura hati fuura banta téléphone di barahama na hati banko naan barahama sa doom baaba nee na nga pareel ko parce que ñu bara xam ne bara mbaale naan ku ribi waxal borom ngir mi di maate ca inertaati di bara xam ne ba la téléphone ba kàddu sonné bii na di bara xam ne na mooy na di baraxam ma ne baraxam baaba waa ci ca lii na di barahana ko ñoy jëlé baba ci kër ga ba jox fa baabu fa barahana dañ tajul arifin mi sappe de ba ma jëbal jambi borom barahana bi di fene bare sappe ndor an qawu afrique jublu misbahu salam bi selmade ba nekk ba nekk taxaw na ma mel na ko indi yi bara ama ne barambar ne naan mbooloo mi du ngeen xam ci baaba jàmm bu ragal borom bangi añi bara ama ne seedeel naa ko xeeti gëm yàlla yow ma yu ko suuf ku la sottal du bara ama yàlla mi dénd suuf si wii se asamaa xal naay wawal lépp luy tuwe raxamakat balaa maa ko naan ko tindi dégg naa la baba na ko wàcce di baraama na kuréel kuréel jaayante haddina doxotal islam bi waahidul qahaaru yow na dañuy baraama na haddina ko kat bi sant riitu dëkk yombul riitu dafay dafay jaayante dañuy baramara xaddina mbër mu tële la matta jaayal bi ci gën iblis la ku ko jaayal rek la doon dañuy baramara xaddina ba nga jàng luy fañ mar dangay robalee ma tuur mbir yi ci gëm si di baramara mu jàng ban lu ci way def ci boppam lay tees ku la yow mi hoo fi ne baraxam na gàffa ganaar këpp ca bomba nga fay fay daay lu max man ci butéel gëm leen ka ne baraxam bañeen ñu soppe seen xalaat yàlla na ci ñoom pour bu saman marka pour ka baraxam yàlla yàlla gotti say noon naqasal seeni pexe xarnaa si jënd muy sidi baraxam jaale ma muri saadi bi seexu jëmm bi na seen këram kànga barahama su baax doonte nay dee seexu jang raw meemu way ma tuur seexu janga yi muy saadi si di baraham ma daal yaa ngi koy jooy tool yi bàyyi yaa ngi koy takk jumaa jaa yi ñaan saadi si di barahama bu ñu meloon ni seexu jang ndi koon du jàng ci seexu janga yi si di baraham ndongo yi ku doon wutu bile bidiw ca kaw asamaan guy gu mag ani barhama seetu jangil na ibrahima duutoon mbaam daara ko tëjji nañ sidi barhama ñatta ane woon bu leen jësit jàppee gaaña mbaali rawuñ dawal yàlla am fuujam sidi barhama na gaal du dundu capitaine Paye bëgg a dee xiifu góog ngal du bëri nene bara sidi bara mu ne am sa gaal te mënoo caa jàll taxat ko jaaroo bëggu liberté bi ñëw moo di bara mu ne ma faa tuulu kunuus bi tërbiyaa bakkan kang may la jël bakkan bu da fay feebar sidi sidi amuna na la naa man gént gu ma jaagal sudu to ko wet ko de ko da ko laaji waa kër sidi bara amuna na la naa man juróom ñaari mbangong ku ñi ngay la ko lakkul na ñi do topp saa wa say ay sidi baraam ma lay bañ ko jubi gaynde ga set na juróom ñaari baat juróom ñaari baat yooyu góor sidi baraam ma la booba laa gis gaynde gay daagu dañaw ci seen biir la laa dem ba di leen kiiru sidi baraam ma la booba laa gis ngenaaw lu moom ca kaw asamaaw na walaw ba dal ci seen biir sidi ba nga xam ma na ñanaaw la jàpp gaynde ga rey ko yàpp ko bam jeex mu jëm dale xoolee doomam sidi ba nga xam ma ne booba laa naan li mulku ak li ci fi njanaaw maa de seen siit sidi baraa tum leen te es bi ci baay ko dee du ngeen layoo buur xam ngeen na sidi baraa mooy Seexu Tijaan tum leen te es bi ci baay ko dee du ngeen layoo buur xam ngeen na sidi baraa mooy Seexu Tijaan falgun faleen asal ko folli man def na may ree ahlu soodaan dañoo réeroo sidi bara amma mag du janoog gas caaxaan bu leen taxal baay Seexu Tijaan yàlla koy fal folli bara amma sare xatoo ku ko caakaayu ci sa बोकुयो बोको सिगई सब निकीबा सरे आतु को चकायो अच्छा अच्छा लाज को बरहा सरी आतो बिच बिरियो वो न बरहा दिगे बिगे दिगे आदीना दफलेन कोई जुई हेलिमानी फैदु बाय न्योम मनी बरहा diggante dige àddina dafa leen ko njuy yëmu wuute waral dëgg jantan yi bara amma burqaatu simna ganga jàngoon da weddi bara jëfee caawata do fas meew dañu linkaare burqaatu simna gaañu ko jàngoon da di bara jëfee caawata do fas meew dañu linkaare muuraay yi ngeen nekkee ak la dem la ci yéen muuraay bu doon taxa falu bon juma di seefoo muuraay yi rëy yi ngeen nekkee ak la dem la ci yéen muuraay bu doon taxa falu bon juma di seef ku la jottati ne ko njool bi baraama sunna leen jees bu leen añaan bu leen bay bay doo ku ci bay ba dee yaa weddi yàlla yaa bay maam Seexu Tijaan ku la jottati ne ko njool bi baraama sunna leen jees bu leen añaan bu leen bay bay doo ku ci bay ba dee yaa weddi yàlla yaa bay maam Seexu Tijaan bàyyi nooru ñasal moo da kaw su diina bi tey ay nuuru ñas lay moo da kaw su diina bi tey niru manga kenn du la bay gerte yaa ngi daan bëgg a wow ay nuuru ñas lay doomi soxna tuutu ko am ay ko am ay nuuru ñas lay way moo de xaw si diina bi tey bismillaahi may bëggatee woy ki raw ci diina bi tey tajul aarifiina bi ñas laxul bi mooy ki la sa su nekk rek xalifa daan ca warakam ñu ko yëgal kaaba yàlla gañaan la waru see ko sa ko si xaw waxame bàyyi ma wax kumte yutul lu day romb naa jëndu yedda ku tay nguur gi kenn na tey ku ko di kan ku kala kii di kan xanaa bay mu dem ba ci diine di lay lambi diina sàcc na déglul ma dellu bàkkati bal bàyyi nuuru ñasa lay way bàyyi nuuru ñasa lay way ma ba na mel ni ki واجمل لبيك فيها روح برام روح برام وليوم دار الفيف لو كنا دار الفيف كمان ايه وليوم

sabikiina sakin na déglul ma déglu bàkkati bar bàyyi noonu ña salaay way ويعلمها بدير النواب ragal ki mbon gi nekk ci yow ka sawaat ci njub ne la dellul te jaamu yàlla bu dal bu doo dafa ma ci la jaw law la dafa ma ko dal تلقي يكسك خلقا نقيد أبعاله جفقيك دفق إساس بل نور لك بل نور لك بل نور لك bëgg ak a dal dellu leen ca làng ga te jéem a teg ci janji ya kay ndam na min di yóbbu na ko waaye loolu ñes na dama ne seni baat ku duutu fi saf doomi bay ju namp gilim manta tak mu attani nga ab yu laaya kenn ko far waaye noonu ñaanee way moo nga aw dama ne doon xalifatu si sa baay doomu ndam ci ndiig la jëfee waaye noonu ñaanee way moo nga aw dama ne doomu Mustafa ma ca Madina loolu mooy xalifa waaye noonu ñaanee way moo nga lim bu doon def billaay yi jël du si jot wante yàlla mooy ki ko def bàyyi la rangal yooyu yàlla dama ne am na mbir yu rëy yi fi bàyyi dem ci wàllu riir yi Bayinoo ñas ba ka kaa doola kaliya dal dal dem. Bayinoo.

सते भाई करमनी boo ko defee nga muy muy lu gaawal soosuwaat boo ka jafawal kurus gi doxal ba xame pey mbokk gi ku gi soobu ci yoonu buur ñu yóbbu nga texe farlul ba moom bakkan bi mooy gën ji texe gën ji li war a sàkku mooy am sa morom soo ko amee saxal ci buntam du morom yow sa xarit wattu ma ñii ma lay tuddal ñii faale wu fonk leen kenn du fii yaw saa xarit xandoo la ñuy tuddal mbooloo mu soobu xandoo ñoo jara xandal góorgóorlu leen ci yàlla ba jot seen mébét yéen farlu leen bu ñu leen ci xewet amuma ko manuma ko ay nax la wal tul ma yi yow ay ay la gudd gudd damba entre deux millions moo ñoo nekk wax ñëpp dellu nañ ci bii ba naan ba naan ñëpp man ne nañ bay naan dal am réewam naan dal na réew suriyaat ba ajab yaak araabe yëpp man di nañ teggi nañ na ci zaahir ak baatin bul di waxee sa tul ma baatin sexoon ma ñetti ngir yow soo bëggee jàppat jullit ñan de mooy nay ray ci gañu bañu yo bon ñu taxé roy roy lu ak wante moy taxa texe yow sa xarit sa xoli manay tudal sango ci sa ngoor si kar sa dëkk mooy lay kowe bul tàyyi bul fàtte bul di xaajale bindi fi yop yëpp te bul di senale jogal ci ñetti waxtu yo sa xarit jàpp ak jullit ñi ci gaa yi am ne benn baraama duñ ko jooy danañ ko jooy nga xam wette ak may naw nga moom la ñuy xalam baal duñ ko jooy danañ ko jooy nga xam wéetaay wa ak minal nga moom la ñuy xelaat bàyyi moo ñu waxoon ca wéy wa maay makkal bi maay bokki maay di ngeen demoon ci xal tariqatu baraama doy nañu digee ma yemiri yi fayna fedonani dige junayniyo sasliyo dajjiniyo barhama sasalenta sasedin ko bay yow soo bëggee ñeneen ci baat jàppal ma tariqatu barhama ne noppal ma gubbi kaloo borada yaa barada yaa tañal fa makka ñam ca bépp haaja ya yow yàlla mooy kiy teral te mooy ki lay ci àdduna àllaaxira moo leen gënal téléphone ya télévision ya duñ fa jeex kenn duut fa lekk new ngir ñam ya fàttali ko jote ngir sant yàlla ndolla la baana waa juluulu cant bunt ya ak tabax ya loo digal di waar dundal jumaa ja lim ko loo dégg waa may ñaan ci yàlla ar saxaam ba dootu dañ ca madina barhama fa mu dootu dañ may ñaanale seen bopp ak bépp taalibe fu man na nekk daayi man di taalibe mu dem xarit mu dem jullit te moo bañ yàlla musal ñu tëjëñal ñu luñ bëggul xiwal yi nekk madina barhama yàlla buggal ñu ca ñu leen bari waay nay sant tey topp ci yoonu baay man doon tabe ngoo leen jikkoom yu baax yi jikkoom yu baax yi yow Omar melal ko lottu nga ci ndegam Omar gàttal ko moo doon si yonent bi ci jikkoom jàngal ma mun yatu ta seet maanaaya bon nga xam ne li ma la wax daala seetal ko topp siratu rasul bon nga xam ne waa ji mooy jëmmi rasul jam jaamu leen seen borom kii moo di buur Muhammad borom duun moom te mooy borom ku dul moom te mooy borom duñ ko borom Muhammad borom yàlla habibi suñ borom moo ñu xamal moo ñu xamal moo ñu gënal moo ñu defal kañ jaamu kii mooy suñ borom rabbul bariyate fi ne mooy buuri buuri mooy borom yow sa xarit jeexal ci bul gas ci kenn ku dul kii ne bay si sa tar bu rëy bi lañ gina yaa ñu nandal bañ na wedem ñuy jooy du gis nay suñ borom coy bii borom coy bii sëriñ bi mooy buntab borom màggal ko mooy buntab borom sëriñ bi mooy buntab borom màggal ko mooy buntab borom teral ko mooy buntab borom borom bi moo ji borom nañ tudde màggal seen borom tey waaru naa cuy bii borom Ibrahima ni wax ni leen càccay ba nga sant ndul ma yéene yaa sooba géej géej gi texee saqal ci buntam seen borom ruuxa bakkan day ñuy kuloo ma gaaw ga xatte nan leen baleen kuloo ma leen meroo nañ gaaw a tuqal seen borom bakkal bi maa ngi lay digal yow saa xarit déglul ndigal bànneex bi mooy li lay digal saññam yoonu jëm ci sa borom yow sa bakkan royor roxo royor roxo royor roxo royor roxo royor roxo ci yoonu jëm ci sa borom yow sa xarit nga tulma yi tongo diggante dannoomale dakkaajale ka seenale dalay andil mbugalom borom may doy ni sa bakkan di gën wattoo ma may ak ku tayal rëy ak kañaan dañuy xañee wattul ma yile si sa borom yow sa bakkan wattul ma rëy may dolli sa bakkan ndigal wattul ma nay ak tayal rëy ak kañaan dañuy xañee wattul ma yile si sa borom soo defee lii danga texe danga texe rawe dangal rafet dangal rafet muñal ba am na nga ci yàlla ci gan gi borom alhamdulillahi man ki xamul te bëgg a xam maa jox dakkal ka gën a xam barhaama ñas yow yaay nga ba sa sama ngi sakku ñaan bur yàlla dakkal ñu kañaan aji far da ñaan bur yàlla dakkal ko kañaan jullit ma ci taha rasul wa ali sabil utul wa sahbihi umul butul fi kulli mayanaka mul bar bar ma jas yow yaay yaram tabet niiram ak tawam sakkatu lex ba mel ni lem baay yow yaay yaram yow yaay yaram baay fu mu juddoo tay ba yasen fu mu yaroo ci kuusi baay ku ko jàngal baayam la moom kon tay ba yaaya màgga siis yow man xamis ca takkusaan koo waa dal di mel ni saan malaaka yaaka sappe naan subhaana baraama yay cosaan yow man xamis ca takkusaan fukk ak juróom sërul ma naan mu di ma ca wàqay bu naan waxal ñu xaw sa fooy fanaan xatum junne gannaaw gàddaay am ñetti téeméeri ak giddaay yu toj fan yu néew a néew na su la xam takkaay mu daj du barxaama ñas bila miraa wala nabaas xarnu yettin bi yaa ko tes barxaama yaa da xaw ñas Moussa jugol taw na ma tooy Ahmad jugol taw na ma tooy takkal ma si ngir fas yaa ngi jooy ngir ba nga bay sa tool du booy bàyyi sa tool du booy sa tool du booy ndax mu takkal ma ay dara may ma ligal ma jub jiyaat bàyyi nga si nii na ma xamal lan lay doxaat déete ana ban ay na for lay wàcc bay doy li ma ndax ma way la yaa koy joxe ba taxatalaw ba taxatalaw nekk di law askay barahama yaa fi xaw moo na am dalaay waaye loolu ca asal la bi lay nga wàccaat fii ñu la bay mis ngay doom di bay ca xaddaa mama ci yes ba mooy nekk jalo جلب السيد فين نكو يرمي نك مصار باي برحم اجي كنا سيدي كاي غاي دون تكون مقام كون نكون دم فك سالم باي برحم سيدنا الله اعلم يلا يمنا fu ko neex lay denc ci mbuutam bàyyi dara am booba la summaan nga laxasaay daggakatu mbangaan tàggu jolof jëm ci saasa bàyyi dara am ma ne keroog ba mu wàccee biir saasa dañ ko sancal ñaseen buram baxeen fal ko xaadi bàyyi dara am ban fama la sant tagga malik dinne caana mbaga ka bar kubam suubu wir giit bàyyi bara amana ban fama wala sanc kër samba taw da fuglu seydi mu nga ñaan ci yàlla yónneen bàyyi bara amana hati ban fekk kër samba nan ko ak jihaat seydi wéy na demal bambu bàyyi baax am na keroog ba mu wàcc biir bambu dal da fetal noon ya rammu ñële ñaamu tuubal bàyyi baax am na lan julli mbal ba jàpp na ñeseen bàkku leen maam aji ñes ba a fi mbër bàyyi baax am na maam aji ñes mbala a ngi mbal nga jën wu mag yaa ñoo tere di ci leeya bàyyi barama jëjë xattaari fii kenn du siidi barama dinkiling bamboranaani gaañ barama dooma balo bu ko lëg lekke boo yàlla coy maam li ñi jagle du luñ jëf jëf bàyyi barama ji kay sañ sañ bu ko ko tooña ndoxam nen du forox jàngi leen yéen fuudi riiru sidi baraka leer gént ñi koy dox di gëm mu ne moom bu fajar xale war nañoo dee noonu baraka leer leer ña koy dox di gëm mu ne duñ janoo moom bu fajar xale war nañoo dee noonu baraka naar gànnaar bi doon jaay maqaama ibnu maayaaba da ko tiite ruusi kaaka noonu baraka dañ ko tontoo baane ko ca ngand ma ne ko xuruj ginnal kër gi yow mi bay seex nani marham ma ñàkk teggin tegg aljana torox na taxa martabaaf seex daaw ma koy daw nani marham ma naam ibnu maaya mi di noonu seex yal na ab ci gii ji wuyru marham ma ahlu lamsar yaa nga kër ma jibel ñëw da roose ngeer habdu bii gi gëm na yónneen si bi bara am habdu bii nga jënd kër ma jibel ak a jot ci baay moo man du moo tabee moo gëm si bi bara am laa mi tuuti mu war yow ndaw ma dam ay sama ndaay ali samba ci kaw sa yàlla si bi bara am omar tuuti sa kerteeru laa mi tuuti ca moom man du moo tabee mu gëm sidi bare am maam maam ak seen muy yaaram bi xaaris bi yaa foor bu nga mil ko sin baay sidi bare am maam bi la alim la aarif la bara maa sidi bare am maam yàggal bant ci biir géej du tax mu nekk jin jin ma suubi yeewu leen sidi barakallahi wa himdihi fir ba ca xay bu nu ngeen mujjëm jëm jaasi lañ ko gor mu jaabaan noni baraka man a képp ku la bañ iboo ngi ci xeela lu mu dégg moom la bu ñu dajee diñ ko jàddal noni baraka man du ma ko nuyu du ma ko jox loxo yoo yi ko suuna yàlla buñ fa dajee kuy bañ sidi baraka buñ fa dajee ban ma tampal ko bandaanu jaaxa Ibrahima Diouf na kuy bay si di bara ak xajum xajal wa ngir kullu amrin mooy tuloo jëf wala wax ju dañ tuloo ci bismillahi basmilu arab da daan bi xasal di leen di teggee wër wëral di bàkk waa ji koy muy buur ba mbaa ka ba tax na bu sii na lam urit ba mooy kañ am bërëma sër ta duniyaa ngir mbiram lu jeex la wutuma dërëm manit li may way ci firaaw ka ñëpp mu naw royna cannar bomo rahu way toppuna yon womo haw way toppuna yon womo haw ci tagg mam astami haw jigéen ñi baax na xool ba faw ngir booba hen din ko ca haw mam astu janta yaa gore mam astu yay yayu xare yay yamuñoon ba jooy bare looloo waral te ñëpp reer mamas suy ji ñu ndombu daan ndoxom me neex naay e walangaan jigéen ji roy leen tey dagaan ci moom borom seen bagaan mamas su jant mooy kënu balam yam mu dem ba kënu toj man xas kënu ba kënu soxna say mamastu jankay jaliwa matan na mbolemi dawar mbirabir tolla rawrawar ki moyni hen ki moynowa matan na haqqi borom sanna ce haqqi moromam matan na haqqi seriñom sangam bamay borom këram looloo waral mu moom ci maam astu mi ndey gën doom dawaat ma moom faytum ba ngir moo gën ca moom maam astu ay gànjaraam la jaay jëndee ko am njaram jaayante naa borom këram matal ko laqee ngërëmam moo liggéeyal borom këram ba xam tiraanga xam ngërëm te jaajëful bii boromam ba tax na doo gis moromam jox na ko léppi xalwa ngir doom ju baaxam barke xam waa jami barke xam la xam ba lex lex a jeexee xayam maam as ci jànka mooy ngalam xayma jafoor na ay lamam din ko xaymaa ki përëm te din ko jaayee ay dërëm maam as ci jànka fam soso am nen ca ñoom bu soso mooy junney cuuj ba soso to din ko kay mariam soso njaaraama soxna as sa doomi doom ji ci dun bi fekk leen leraaw yaa barke njànka maaraw maam as ci jànka yaayi baa কি বাই তুমি আসেনি ভাই মফর করাত কবে মেলাই গির মাসা জাহবার খুহাই মাম আসছু মহিনা গুদেস লল্লে বহম নাসা কফেস নরান বিকিফ লেকাল মোরেস ডিম্বুলো হল হাম হারুয়েস মাম আসছু মহিয়া ইয়ে কারাও কবে চগায়ানে কারাও কপোলে ইয়ারি দুনিয়া রাও ممن سوى انكره شريعته حقيقته ابي علم ام معرفته الرشد ام ولايته تجني اي موسوعه ما مست جنك تاريخا هل انت هم مجسك خم بنت لين اي وهم شعيق بارس الشخص من دقنا انا اغلى njankada dal muslim bamam ñi naan ci leen mbiram ak nim dawee daf ñu fëlam te daawut fo ni ay gune da daan sikkar fu mën a ne ngir kut bu fu mu war a gane fokk mu doon fu mu mën a ne kenn mas sa gis maam astaw ci kaw ca ay sikkar la sax te mos sa reebar rekk sax tama sayar yor ngeen na sax sangi jigéen yin fi xamoon ci dun bi yaaw fi ñu xamoon mel nañ meloon def lay defoon ngir jant fenkan moo soo rijal yëkkal juróom loolu yén men to saasaan yahoon ñeente ñu baaw ñawoon tolloon xam nañu naan juróom loolu xomar juróom benn na ibnu abdul asis kaleena rayoon ci mbaax te fonk leen te tànn seen yu topp leen juróomi soxna yi itam ñoo gën fii ak fa ñu jëm mam masta roy na leen ba xam ku ñëpp naw naw moom itam xadijatu fatimatu aisatu asiyatu mariama ñii hajal atu maam asta mooy saadisatu juróom bennal na leen ba tey ba tax na ku yii da wéy jigéen ñi baax ñu honte wéy wéyoo wéy wéy maam asta donguy sëriñam bu baax ba xam ne njëriñam bagaani soow yaa karaw njaboot ga xam ne aw ñam mooy yaay yi boolem dongo ya toggoona fóon ma togg ya toggoona won ya soq ya toggoona won ma coono ya te mastafaatal waxtu am wirda waa wasifa wa te fonk lool waliyu wa maam asta jigéen ñi xam ne royuwaay maam asta jankay royuwaay xaw leen ci yoonam yàlla waay bu leen ko seen su raw na sa doon jéggéey la duñ ko nas si giir na gaa ya sant ñas te toolu diina moo ko nas ba noonu diina xëy na nas sa doon jéggéey la duñ ko nas si gir na gaa ya sant ñas te toolu diina moo ko ñas ba noo indi xëy xanas sa doom ji jàng ko moo musal ruux yi suuxoon ci mbugal setal na seen tilim sa xaal na leen ci ñuy defee ndigal sa doom ji riiw yi yëpp dem nganam ca ñoom dem fa ñaan te fu fa end mbaa fa naan ñu jug ci bekku jug ci ñaan maam as ci jànq yaa fi ne xam ko doy na ndam sandam arabi akajam ya sansa ya magam sëriñ si buy teewee fa baay ñàmmee ni ndaw ma ñaani doom sëriñ say sarka du ca moom di xidma gi raam ca yoo ba baay ji doolo sunu maam abdul ilaahi aslamaam as sa yaakaar nga muy imaam man dogo daata man taam xattam ma fati moom la baay wax liir la booba ci lalaay rijaatu xaybu ya Sénégal nangol ko lay ma formé lay jamaa ma fi ab saahir yomba na mboolee mi mbiram borom jamaano doo gërëm dikkam yomba la baate sa doom ji mooy xutbu sama bahrul buuri kenn du naan la mooy ci géej fooy faan لدود تسوف السماء سجل بناء السماء سدون جمعي قرب السماء ولم يقل جور زمان مرب أمن وأمان سدون جرك مم لن فقم موين كنير كنار كم دي كو دغان دي دم دي تر دي لين دي سي باي سي خم خمك ولايه مستهم nga xam ku mel ni bay yaa mel kuy jiital fa xam sa doon jëfu mosa dara mooy jiite mbooleem ña fa ne baat doole góor ni tëgg ci biir góor ak jigéen magam gune wurus la yaa jël sa jaggal lay addi masrixal yokken ni jànkal lañ fekkal ku benn mbot mu kenn du tam sa mi mooy tikkar ci ha lool moo waral xamal ni sa ñooñ Mustafa mooy seen imaam yaa fes ba góor nay doon samaam bay yaaram la taas la garna la bu tóolla kenn ku yàlla buy bi tànn la kun te kun defal tiraanga taxaw lee taxaw di ñaan ci yàlla rabbana mu tàggatal ñu àddina allah mu may ñu àjjana ci barke bay ci barke abdul ilaahi barke baam aisatu jànqa wassalaam ala nabi xayril anam jongo ma ñuy dox di safar yi ko saraan ndax say tëxal ba ñu waraan te say tëxal mab xeelu nga ñëw ci bët bu ne feeñu nga ñëw colaay bu ne te war nga mag war nga gune kaccor bi foog ma weeja jànq bi lay yaa bëri fa dañ laa xamul mu soo ko jar sa teen bi Moustapha ju aro sa ndox mi sax tooke la mboolee mi sikki yaa ko ku jeex ci yow nga laa xamoon man de bu dee mën a demal soo ma nobee ma umara يوم يحب kelak bardaf batak كمولي بوي wolof جنگو مجي دنيا dunya دنيا سوائي dunya گسنا way daaya گسنا مباق dalan lu ma gëm gis naa ku baax ku ma fajal mar mar کو کوئی sa سننا man nan ba man ni fantera kookoy donn ki yonent bi la sang salaam barkeema ñas dinaa la wuy eu bi sa liggéey a way sa waar wi kenn su ko bay guddeeg bëccëg sa seede la bay jox nga alquran cëram sunu si yonent bi yay këram yaa daan fajal diina meram bi fi jógee lu jaxle bay yaay sëriñ bu ñuy goreel ci topp kuy wéy ci na xel dekkal lépp mu biri solay roobu mbindeefi sangala sëriñ bu dul xam le borom mbindee fi loolu du sago moom la bëggoon ci taalibe faydu may ak marhaaba sëriñ bi yow maa lay digal soo bañ a ñi lay dikkal ñëwal ci bàyyi nga xut fi njël dundal sa gaa yi topp la sëriñ bi yow maa lay digal soo bañ a lool ñi lay dikkal ñëwal ci bàyyi nga wut fii njëriñ dundal sa gaa yi toppala diggante yaay li nga bëggoon li tee nga jot ci màbb ko te bàyyi ay ay cati soo ko defoon mu rëcc la nandal ma yow mu ñal ma ko mooy xaw ma ko ma ko ñëwal ci nga tànk ko danaa la leen def te géej sax moom dafa neex ni kaw saran du xom du ku naan ba man di dal di fiix te doo marat ba mukk dara te géej gi fay du baay xam nañ ko ñoo ko Sénégal Cheikhu Tidiane waxoon ko waay kii raayu rey say kaasa jawru nu pii bi yaayu biir guddeeg bëccëg jant di leer ngir moo xamal leeram gi weer xamul na sangum xaat bu la li fil taxoon mbooleem rijaal yi daan jihaat ci yoonu xaal baraama mooy ki ko fetal te moo ne xam la xayra ni mu weboo la newetee bàyyi tooñ ko taxul mu di jotee xas ko a mosulatee soo haajoo mu sidd la bàyyi mosu tamer ngir bakkanam mosu tëddëg ngir njëriñam gis ko fooyee diinay meram te su dëggee ngir yàlla la dadaan ba dee ka jéllalee ñu fiiwulu ñu jubalee te ak tabeem day matale soppeeku yomb bu tedd raw na ba raw na leen ci taat baataan bu neex ba raw gitaar te ay waxam day wutu saar ngir lu dëppoo alquran raw na ba raw na leen ci taat baataan bu neex ba raw gitaar te ay waxam day wutu saar ngir lu dëppoo alquran qadril qidaras barhamu baun waraun alifun thumma ha